sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Sidil Maxtaar di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi dolli ko kattan ba mu mottali mboolem ay naalam ak ay yeneen ki liggéeyal xaadimu rasul di ko ñaanal sëriñ Abbas Mbacke xalifatu Cheikh Ibrahim ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa yëpp ak kilifa diine yëpp. di nuyu Serigne Mor Joxaane ak mboolem bokk yi nga xam ne ñoom la àndal di am mbégte ci jotaay bii nga xam ne moom la ñu ànd ak ci bokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci al azhar touba point com di leen sant bu baax a baax ci jotaay bu am solo bi nga xam ne dañu koy waajal ngir di ci waxtaane kenn ci xuwaati yoon wi muy maam Thierno Ibrahim. jërëjëf euh, Serigne Gana ni nga ko waxee rek ñuy dellu kon di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi Serigne Jibril Khoule Serigne Soy bu Maar Serigne Mouhamadou Lamine Touré Serigne Cheikh Amadou Mbacke kenn ku ci nekk am na Euh, hmm, loolu bu am solo boo xamante ne bii ñu ngi koy taxawee ci liggéey bi euh, di gërëm nag suñu benn xarit bu ñu àndal mu di Serigne Cheikh Mbacke Diaw ñu koy sant bu baax a baax di gërëm euh, ni nga ko waxee léegi sëñ Gànna ki ñuy waxtaanee tey dafa bokk ci ñi nga xam ne nii bu ñu nee kàngam sax baat bi mënta natt dëgg dëgg dëgg taxawaayam ci yoon wi waaye bokk na daal ci ñi nga xamante ne bii liggéeyal nañu Serigne Touba liggéey bu ràññiku te itam am na taxawaay bu am solo boo xamante ne bii am nañ ko ci yoonu murit euh, ba tax na kooku nga xam ne moo di sëriñ euh, maam Thierno Birahim borom Daaru Mufti bu ñu sañoon rek laataa ñuy dugg dëgg dëgg dëgg ci ay jëfam digganteem ak sëriñ Touba digganteem ak mag ñi nga dikkal ñu rek ci ndoorteel mm, sëriñ maam Thierno moomu maanaam ak feeñu jamonoom. Euh, jërëjëf sëriñ Mor jërëjëf mbokk yi ah, maam Thierno Ibrahim mi ngi gane jamono ci. dëkk bu ñuy wax Poroxaan dëkk boobu nga xam ne fala la way juru di Khadim nekk ngir la waral loola mooy xam ngeen ne jihaad jooju Maba Jaxu woote woon ca Ñooro te nit yi diine ñëpp demoon ca ëpp ci askanu Mbàkke ak Mbusoo bi ba ñu ñëwee sëriñ Mor Anta féete foofu ci poroxaan fala jàmbar ji gane jamono ci atum sërfëjin eh, muy at moo xam ne it mu bari lum dajel la 1863 ndax bi muy feeñ moo jamonoon moo taseeg xareeb Paate Mbadiane ci Paoskoto balee soqi ca xare bu woobee alxames la feeñ jamono di fukki fan ak juróom ci weeru gàmm am wàccaay du rëy rëy ndax jëkk muy feeñ sëriñ bi ci boppam doon na sàkku di ñaan yàlla ku ko jàppale ci yanam bu rëy bii nga xam ne moom la yanu muy yeesal sunna su yonente bi alayhi salaatu ak yëkkati dara bu lislaam ba fu waay di ko seen loola it ba mu nekkee ci dënnam di ca yëngu way juróom sëriñ Mor Anta Sali xamaloon na ko ne soxna Fati Isa mii am na lu mu àndal te bu ganee jamono di góor moo lay jàppale ci sa yan bi moo tax ñu wax ne keroog bi mu feeñee jamono sëriñ Touba ak sëriñ Mor Anta Sali dañoo jëkkalante néeg soxna Fati Isa lan la ko sëriñ Mor Anta Sali wax sa ñaan nga nangu na ki lay yor yand noonu la ko Cheikh Moussa Ka waxe kon ba mu feeñee am yu bari yu ci xew mu sëriñ bi moom sax na fa bindub téere boroxal ko ci permi ñu takkal ko mu jàngal ko fa sab on mun jiyat maanaam mboolem juróom-ñaar yëpp mu senge ko te moom la saxaloon ba nu mu ñëwee paatar ni ko sëriñ Moussa Ka waxe waaye ci yéem a it ñu ne keroog bi muy feeñ alluwa ji sëriñ bi yoroon dafa am lu rëy lu taxaw ca kaw di fang naan ko booy amiru mooy wasiiru maanaam kii kii di feeñ kii feeñ tey bu fekkoon ne yaay président de la république mooy nekk sa premier ministre daan na ko it boo doon Moussa mooy Haroun fekkoon na sëriñ Tuubaa di jàng suuratul xasas ba agsi ca laayay wa axi haaruna afsahu minni lisaanan fa arsil maa lan yusaddiquni inni axaafu an yukadibun foofee lañ ko yëgale xibaaru borom daaru feeñ na jamono te loola mooy Moussa dafa ñaanoon yàlla mu defal ko haaruna mii mu di ab yonent ngir mu jàppale ko ci liggéey bi muy liggéey ndax moo ko gën a éloquent ci jot li message loola moo taxoon bam ko ñaanee yàlla defal ko kon moo tax ñu ne boo doon Moussa mu dim Haaruna yooye biir ak yële biir nuroo na kon kon dëppoo ga foofu la feeñe poroxaan ci soxna Fat Isa way juróomu sell woowu ci way juróomu sell woowu sëriñ Mor Anta Sali ci dëkk bu sell boobu jërëjëf sëriñ Gana ci euh, poñ bu njëkk boobu nga xam ne damay wax ne mën naa am waxtaan wi kon bu yamoon fii rek macha allah ndax man mi nga xam ne sax maa bokk ak yow waxtaan wi dolli naa ci loo xamante ne bii mosuma ko woon a xam ci ku tedd ki nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey di euh, sëriñ maam Thierno Birahim borom Daaru Muxti waaye tamit euh, ni ñu koy faral di waxee ñoom dañoo nekk jëmm yoo xamante ne bii euh, seen i jaar-jaar ci wàllu zaahir seen waajtaay ci lépp loo xamante ne bii danañ ko yittewoo ci ni nga ko waxee léegi yan boobu nga xamante ne bii moom la ñuy dox wala tubaab naan mission. day mat sëkk ba tax bu ñu sañoon itam nga dikkal ñu dëgg-dëgg nag ci ay jaar-jaaram ci wàllu sàkku xam-xamam ak wàllu yi nga xamante ne bii daal wàllu euh, waajtaay lay doon daal ni mu ko mën a tuddee. Bàmbaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng liggéey la boole ba am ndam kon sëñ mu Ka nee sëñ bee ko jàngal alxuraan moo ko jàngal xam-xam ba mu wattu alxuraan waaye sëñ bee ko jàngalal boppam it xam-xam bokk na ci sax li yéeme loo xam ne. sëñ bi bu ko mas a jàngalub séeréer ba mu xaaj danaan ko may naa la li ci des dañuy wax ne lim ko jàngal lim ko may sax lay gën a dégg ci lim ko jàngal nga xam ne kon loolu xar baax la goo xam ne sëñ bi da ko doxalee diggante ak moom ci am njàng sëriñ bi bi mu ko jàngalee ba noppi yabaloon na ko ca kër sëriñ baraam a Jaxate yabaloon na ko it ca Baye ma Jaxate la waaye ba muy dem ca sëriñ Mor Baraama Jaxate dafa yóbbaale ay abuyaat yu tegtale ne kii fi ñëw kat am na lu muy feeñal si ci ne mbër la muñ ngemb moo xam ne day wone message sub ca ka mu bàyyi ko ndax ba mu ñëwee da ko da ko wax ne ko maa ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne mooy dàq loj ko lu ñuy misk ak àndar ci kan laa koy jëme mooy ci sangub jamonoom bii nga xam ne ak leer la ci biir ak lëndëm ab làmp la ci ak lëndëm daana ko mooy koo xam ne it bari waana ku réeroon ñëw fi moom mu def ko muy géej waaye bari waana woon ko suufe tey jii mu def ko muy ku kawe daal na ko mën mii nag maay ki nga xam ne jóge naa fu ba fu sori ataaka xaribun min biladin baida aji tumuranke ngi nii ju jóge ci réew mu sori ñëw fi kon nag na nga nekk bàyyi ci man nekk ku may laaye biire bul ma sàggane nag ngir sama réere ba yeggalee sëñ Mor Baraama bi mu xoolee bayit yooyu dacaa teg ne ko wallahi law kuntu thalat man li xuduudikumu ila mamatiya ma niltu bi maqsuudi ah dëgg-dëgg day xaw looy sàkku de waaye bu ma juumee ma sama loxo bii laal sa lex boo boobu ngir ne dama lay jubbante wala dama lay jàngal duutuma am li may sakku mukk adduna ak alaxira moo tax sëriñ Musaa Ka wax ne sëriñ bi kat yëbul dongam bi loolu wane santion bu ko sëriñ bi def ci fees ci xam-xam ak meloom moo tax Cheikh Ibrahima Al booy lim boroomi xam-xam naan diw ak diw génne ci maam Thierno ndax amulum kem ci ku ni gam-gam ci xam-xamam bu bari ngir jàngal gi ko Serigne Touba jàngal Bamba ko jàngal waaye Bamba ko yar yor ko ci waxtu sixari te mësula tàggoo moom li waxtul ki bari Serigne bee ko jàngalal boppam sëriñ bee ko yaral boppam moo ànd ak moom tërbiye ko mu séddoo ci sëriñ biit lu bari ci ak ndawam bokk na ca keroog bi sëriñ moo Anta Sali génnee àdduna ci atum sësin di 1300 ca Mbakke Kajoor bañ ko waree miraas xeetu waa Mbakke ak kokki ñëpp teew sëriñ Touba dane leen man duma donn waaye maam Thierno mii du donn loolu lu yéemee ngi ci ndax sëñ bi moom sañ na ne du donn waaye lu tax mu ne du ma donn maam Thierno du donn sëñ Touba kan la donn ci alali sëñ Mor Sali mooy ab kaamil ak maam Thierno waaye dafa waxoon ne man yàlla doy na ma tey doy naa ko maam na doy na ma may doy naa ko sëñ Tuubaa bu ne yàlla doy na ma ba noppi teg ci ne maam Thierno doy na ma kon wone na doy gu maam waaye sëñ Tuubaa xamee it ne may it maam may doy naa ko loolu moo tax ba ba ñuy miraas juróom borom daaru donnul benn cër ci Serigne Mor Anta Sali Serigne Touba it donnul ab kaamil la jël donn maam Thierno Ibrahima kon sëñ bi tërbiyal ko boppam nga xam ne Mbàkke Kajoor la jëkke laawoo sakket fukki at ak juróom la amul ko enquête booba fekk na mu watt alxuraan loolu la sëñ Moussa Ka wax nga xam ne sëñ bee ko tërbiyal boppam fu mu mës a jëm mu ŋàbb der ba ak setalaam ko topp ci ginnaaw sëñ bi di suppiku ci moom di ko sotti ay anwaar ak asraar di sotti ci moom booti yàlla yi bàyyi ko ci moom nga xam ne ku ne xam na ne seriñ Touba waxuma nga nga nga góogóog moom taxoog moom waaye jataay bu mu toog ba jóg rek ku fa ku fa yandu wala nga romb ko rek booti yàlla yu bari sotti ci yow. te daana daana jëlal boppam ak Cheikh Ibrahim yandoog moom di sotti ci moom ay ngëneel di sotti ci moom ay tawféex moo tax mu duy ko xam-xam bu bu yéeme boo xam ne ku ne xam na ne la lay xamal xam-xam bu bari mooy ñam jàngal doy na ci Cheikh Mamadou Fadal Serigne Fadilu nee na woon sunu bàyyi Cerno kat maag sama mag ju baax ci Cheikh Amadou Moustapha noo jàngal ban ne ar mu yar nu ban nër waaye doy na ci Cheikh Massamba doy na ci sëñ Maxtaar Bintaloo mi nga xam ne ku ne xam na xam-xamam fi mu toll waaye doy na ci Nibrasu Njàmbur nga xam ne loolu moo lay tegtale bu ne borom xam-xam ñu ne kan mooy borom xam-xam ñu ne borom xam-xam yaa koy wax te fan la roote mooy maam Thierno lu Serigne Bassirou Mbacké wax Serigne Bassirou dane maam Thierno moom gisul yëfi kenn maanaam sëñ Touba ko yar sëñ Touba ko jàngal lépp Serigne Touba ku dul moo tax moom gisuloon lenn lu du yëfi Serigne Touba. jërëjëf euh, Serigne Ganna li ma waxoon ci poñ bu njëkk bi rek laay waxaat euh, bëri na lu ci feeñ loo xamante ne bii. ñu bëree bari xamuñu ko woon ci ku tedd ki nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee mu di sëriñ maam Thierno Birahim Mbacke borom Daaru Muxti wax nga léegi itam ni ku tedd ki meloon ak moom euh, ci euh, tarbiya goo xamante ne bi tarbiya na ko waaye mbóot yu bëri yoo xamante ne bi def na ko ci moom ba firndeel ko ci fi mu jaar ci wàllu sàkku xam ak ñi nga xamante ne bi euh, ku leen tudd ci Sénégal rek ñu ñu bàyyi xel lañ ñu ne kat jaar nañ ci moom ngir sàkku xam-xam yaakaar naa loolu am solo la waaye nag euh, yaakaar naa poñ bi ñu bëgg a dugg euh, yi ñu génn am na solo waaye bii itam euh, ëpp ko solo du yomb ndax digganteem ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba am na loo ci junj léegi waaye nag digganteem ak Serigne Touba yaakaar naa ràññiku na lool rawatina nag liggéey bi nga xamante ni bii ku tedd ki doon na ko def loo gannaaw bi muy dem ci géej gi loolu yaakaar naa lu am solo la ba tax na bëgg nañ. nga xuus foofu sëñ gànna tuuti ñu soog a dellu siwaat jërëjëf ginnaaw uh, sëñ bi def koo waajaloon ngir mu jàppale ko ci liggéey bi dëkk bu sëriñ bi am moo ko sanc moom asi Ibrahim uh, mu ànd ak sëriñ bi sëñ bi di ko yulli ay bóot di ko wane li muy waajal loolu moo waral bi mu jógee mbakki Kajoor ñëw Mbacke Bawal ñëw Daaru Salaam ba ñëw tuuba juróom-ñaari ati tubaay ba bi muy dem Mbacke Bari ci bay sasin ànd ak maam Thierno Ibrahima yóbbaale ko ndax xam nga ne dafa wax sëñ Mbàkke bu sonna toog fii yóbbaale sëñ Daam Abdourahmane Lo ak maam Thierno Ibrahima ngir wàllu njàng mi foofee it ci atum 1895 jooju xam ngeen ne fa la yón la yónnee woon muy premier test bi ci la yónnee woon ak Cheikh Ibrahim bi ko gouverneur général di yónnee leetaram yooyu di ko wolu ngir mu dem bu jël ko loolu dañ cay jànge ñeenti melo yi ñu wax yëpp ne mooy tax nit doon murid saadix asidqu fil ba imtithaalul awamir tarkul i'tiraaj salabul ixtiyaar yi boo bëggee dara dalay gëna leneen lu loolu maam Thierno bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa moo tax bi ko sëriñ bi waxee ne ko ñëwal demal ma Ndar mu jóg jëfe ndigal bañ a gaaral inkaar ci lu ko cay fekk wututug tànn it la ko sëñ Tuubaa tànn rek la def moo tax la waykat ba ne moo jëkk a dem Ndar fa kër boroom Ndar billaahi yaay gor Cheikh Ibra Fati ba Bamba soxlaa yow lañ fa wóolu Bamba la wóolu maam Thierno ci fanweeri at wujjil Serigne fa ci wone jom ak fit bi ko gouverneur général tàllalee plate na ko teg ci lettre bi Cheikh Ibrahima dafa téye loxoom na ko ki ma yónni sa loxo ak sama loxo la waxoon xam ne loolu wane na ci rek mandargam tubaab bi jàppoon na sax ne kii ñëw moom day far day sëñ bi mu def ci am solo. mooy keroog bi ko sëñ bi ne keroog bi ko tubaab bi ne sëriñ bi dañoo yónnee ci mu ay ndaw di ko woolu borom daru dana gisuma fa kenn ku fa ñëw di ko woo ñu ne ko waaye wóor na la ko ko woo danañu sëñ bi ne wóor na ma ne ku ko woo danañu fekk na booba yabal nañ ay espèces yoo xam ne dañoo war a ñëw pour jël ci sëriñ bi sëriñ bi keroog fajaru ajjuma jooju gaaw bi bi mu ko jullee day day day laaj rek di baamtu ceerno ak séegul ceerno ak séegul borom fanweer di ci wax set taw beeg dënd yi di di yëngu te ñim war a àndal riir ko waaye mu teg maaru géem gi rek ci biddiw bu ko sëñ bi tegtaloon na ko bis dana ñëw sama kër gi ci Mbàkke Bari loo tiim ba muy agsi tasante sëñ bi génn ci jàkk ji sëñ bee ko lëngal boppam ànd ak moom jëm ci kër gi ab diir Jibril alayhi salaatu wasalaam wàcc na ko nag duggaat ci kër gi araam na ndax digg bi jot na maam Ceerno li ko nett li lem jële ci yoon sëriñ bi ko tapp tappal na ko dara mënut maa ndax démb ca ngoon ba nga taxawee tubaab yeeg ceddo ca detti mbeerub jànj xorondoom yi doon dox ci seen i tànk maa ngi koy gis yoral ma dongo yi fa ma leen mën a yoral rek daal di laaj laaj lu naaru góoram wow di xamdullahi ñu teg ca mbalaanum sooy dégal yu weex tal sëñ bi daal di war jël loxoom bu sell ba teg ci bopp Cheikh Moustapha loxoom bu sell ba ci bopp Cheikh Abdou Fadil dénk naa leen yàlla seen bàyyi Thierno daan na gees maam Thierno na ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom won ko ginnaaw borom fan weereet njaboot gépp daw laxasu yoon yëpp daw laxasu muy teg bëtam ca mu di ko woon ginnaaw di dem mu dellu siwaat waat sàmm ñetti baat yooyu na gore na nga muñ na am jom sëriñ bi ne ko yoral ma njaboot gi ak foo ma leen mën a yorale bu Tuubaa mu jóg jël responsabilité bu rëy boobu euh, ànd ak njabootu sëriñ Tuubaa gi amul fu dëkk amul fu mu nekk fu jëm ñu nekko ko ba xam ngeen daana fanaan fanaan cim saq ak njabootu Serigne Touba gi moom Cheikh Ibrahim ba dem ba ñu mu dem dëkk bi ñu wax Guy Ngura fii ci ginnaaw Mbakke Guy Ngura fan la ak mbay dee fa la Cheikh Awa Balla gane jamono am 1900 foofu la njabootu Serigne Touba gépp tawat maam Thierno Ibrahim julli ñaar rakka tuur ay xéewal ñaan yàlla boroomam na ko sama kilifa gu baax gi dem batale ma ak njaboot gi bu naree ñëw ma di ko linkaar dara naa ñàkk sama bakkan. wala bakkanu soxna Fat Isa wala bakkanu sëriñ Modou Awa Balla nga xam ne ngir doomi sëriñam dund jaral na ko moom mu faagaagalu ak way juróom ak njabootam ngir li ko sëriñ Tuubaa batale mu def effort bu rëy mooy bi sëñ bi daataan jóge ci géej gi kaamilu sëriñ Modou Moussa noppi na kaamilu sëriñ Fadilu noppi na mu téye njaboot gi nag la la la Muhammadul Alawi doon wax ne rabal rabbal dina wa aqaral banina nee na dafa yar murid yi ba noppi nag jàngal njaboot gi at yi Serigne Touba nekk ci géej gi lépp taxawu te nasaraan bi bàyyiwuñ ko noon ñaata kër yi borom daaru lañ lakk ñaata daggay borom daaru lañ lakk daanan andi addiyee sëñ Mandoumbe daan bay Cheikh Ibrahima Fall buñ boolee addiyee def léegi-léeg tubaab yi jaar ci ginaaw na duru dagg ci taal nga xam ne téere yu bari ci sëñ Mbàkke Buso lakk na ca lu ko andi mooy tubaab yay def loolu teewul mu muñ waaye Serigne Moussa Ka nee na mësula tiit du jaaxle mësee fu ko borom moo baaxle teewul mu taxaw rek ci li ko sëñ bi digal mu sax ca di jàngal njaboot gi leen yar nga xam ne daana def kër bu rëy wut néeg bu rëy def ci digg bi defal ko ñaari bunt wut beneen néeg ca gannaaw ca lay def bagage yi Serigne Touba yëpp wut juróom-ñetti ponkal yoo xam ne saa yu xëyee fëggaat bagage yi ak yeesal ko rek a seen mécc saa yu xëyee rayalu gàtt njabootu Serigne Touba te njabootu boppam gi du leen rayalu gàtt te ñii du ñaani ca fee ca ñii du leen ko yëg taxawee njabootu Serigne Touba gi yëpp ci ngor ci fit ci jom ak taxawaay bu yaatu boo xam ne kenn ku nekk gis na ko ba Serigne Touba gërëm ko ci gërëm gu wét ngelawu mat sëkk woowu yi daal moom la maam Thierno taxee woon ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba bi mu nekkee ci géej gi di taloore lu bari xoola keroog bi ko góornóor ne tasaareel mbooloo mi te toxu jóg fii lan la ko maam tontu jëmmi toxu gi mën naam ndax sëñ bee ne ma woon yoral njaboot gi bu jàppalee waaye jëmmi nag tasaare daara ji balaa am da ngaa jaar ci sama kaw ba jàll ba noppi dooraat sëñ bi waaye sëñ bi ne moom yoral njaboot gi ak foo ma leen mën a yoral bu Touba jàpp ne bu jëpp beneen béréb bu neex yàlla. jërëjëf euh, Serigne Ganna Messere Mokhtar euh, ci leeral.